Zal complexe franco arabe kër maam Awa bu Serigne Makhtar jén dalloo woon ay gan yu ñu ràññee lool ci dëkk bu sell bii di Touba mu di waa daaira muxaddamatul xitma bi saytu war may jumaay Touba gile kuréel nga xam ne yamuñ ci lu ni mel xam-xamit nekk lu leen yitteel lool loolu tax talaata benn fan ci weeru octobre atum 2024 ji ñu xëyoon séqi ay jéego dem ci complexe franco arab kër maam Awa Lo bu Serigne Makhtar Diène ngir saytu la géey bu mucc ay bi nga xam ne Serigne maxtar Diène daal na ko fi amal ci bi 11h di jot la ñu yegsi ci bërëb bi Serigne maxtar Diène daal di leen di gàttandu dalal leen ànd ak ñoom ngir ñu visiter bërëb bi gannaaw bi it sëriñ bi jot naa séq ak ñoom aw waxtaan ngir leeral leen lu bare bari lu tax mu amal taxawaay bu ni mel. bi ñu xamee ni xale yi ñu xool ni ak dëkk bi ni mu bindoo ci jàng. suñ doom yi dañuy génn dem di jàngi feneen. xañ na yar baag gi ñu ciy am ndax boo xoolee fii mun na jël ci capacité mille trois cent li pareegul xañ ne kon dëkk bi ni mu toll même boo jëloon fukki école yi toll nii du tax ñu am ndax ku xam li fi ne ci ay xale bëgg a jàng kenn xamul nu mu toll waaye sens bi ñu ci amit mooy li li fi jiital mooy alxuraan ndax moo ko fondé daara ji mooy ndey ji moo tax boo xoolee da ngay xool ñu def daaru xuraanul karim kër am awaloo daa boole njàngum tubaab ak arab dugalaale ci majalis waaye nag liñ ci gën a gën a gën a yitteel mooy yar bi te mooy li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi bàyyee waaw barab bi fii mat na 5000 mètres carrés li ko war wër 70 ak 20 mètres ak 30 mètres mënoon nga fee xayma yeneen ak yeneen ak yeneen waaw te foo xas def jumaa xas fa def daara xas fa def maanaam école moom génn na sa loxo lool moom askan wee ko moom yow moom moomatoo ko ñun liñ ci jublu mooy du wut koom-koom waaye liggéeyal Sëñ Tuubaa moom Serigne Makhtar Diène mu wane xol bu sedd ak mbégte mu yaa mu am ci visite bi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma jot nañu ko amal ci bërëb bi kon ñi ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm seen tànk yi moom bég nañ ci lool ndax xam nañ seenu taxawaay ci xam-xam ci mbaax ci soññee xamit foofu ni ma ko baamoo rek rek ndax barab la boo xam ni daaraa nga fa ca biir ni ma ko waxe maanaam muy kàggu ga fa sëñ Moustapha Mbaye daan jàngalee fa sëñ Ass Jaxate doon jàngale ak jumaa ji kon foofu boole na lépp daanaka <laughs> université bi mag moom mooy jumaay Touba moo sos lépp lii ca la sosoo. naka noonu it ñoom waa daaira muxaddamatul xidma gannaaw ba ñu amalee visite ñu jot a indi ay leeral ak i seede ci li ñu gis ci bërëb bii. dañoo boole mbégte ak mbetteel. mbégte mi mooy jëmmal gi nga jëmmal liggéey Sëñ Touba muy xam-xam loolu moom mooy mbégte mi moom mbetteel gi nag mooy li ñu foogoon ne moo fi nekk dañoo ñëw fekk fi lu kawe njort wax dëgg yàlla ci melokaanu daara ji. ak respecté gi nga respecté normes yi maa ngi koy wax sëñ Fallou nii ne ko man dey xanaa daara yi ma demagun de moom modèle bu mel nii moom man maa ngi ko doon gis moom. yaa ngi ko tàmbalee woon ci daaray seng mbaarum seng. ak volonté boo am ak bëgg koo bëgg xam-xam. ndimbalu sëñ Tuubaa dab la ba ba mu agsi fii. daara Muxaddamatul Xidma bég na lool. vraiment ñun ñu fi fekk daal. bég nañ ci lool dal na suñu xel mooy lii da nga koo def. te yàlla rek tax ngir liggéeyal ci yàlla liggéeyal ci sëñ Tuubaa toujours damay faral di wax ne mbirum njàng ak njàngale moom du fu ñuy wutee xaalis moom boo bëggee mu tege ci yoon moom doo ko def wutukaayu xaalis danga koy def te yàlla tax place bu mel nii 5000 mètres carrés nga wax tey leneen luy génne xaalis ay milliards xajoon na ci yow xalaatoo lu dul def ko te yàlla tax ni nga ko waxee jàkka daara képp ku ko xas ba def loola moom génn na moo moomeel kon ku def loolu da ngay xam ne kii liggéeyal yàlla dëgg moo ko tax a jóg kaamilu alxuraan xasida ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ak lenn ci ay œuvre nga xam ne daaira muxaddamatul xidma ñoo ko amal loolu di ay neexal yu ñu jagleel Serigne Makhtar Diène ci ndigalul Serigne Afia Bousso loolu di firndeel mbégte mu di kontantement bu rëy bu ñu am ci taxawaayu Serigne Makhtar Diène moom mii nga xam ne yàgg naa amal taxawaay bu mucc ay lool ci kuréel gii rawatina it jëf ji nga xam ne daal dina koy jëfal dëkk bu sell bi di Touba Touba. ndax liggéey bi ñu yor ci tuubaa muy jumaay Touba. yàgg nga am ay taxawaay yoo xam ne ci jumaa jële jëm. kon daayira mu xaddamatul xidma ci turu sëñ Afia dañoo indi woon loo xam ne day symboliser suñu mbégte. tudd nga ne alxuraan moo sos daara ji kon moo tax alxuraan jooju la ñuy jiital incha allah. tabarkalla ginnaaw alxuraan tam amuñu lu gën a rëy ci ñun xaside yi mbindum sëriñ bi. diiwaan boobu moom itam ñu teg ko ci. li nag bokk ci isdaaraat yi muy œuvre yi nga xam ne Muxaddamatul Xidma moo ko def euh, waxtaan yi ñuy def ci koor gi jamono bu nekk du ñu bëgg waxtaan yooyu di dem ci noonu nit ñi dañ koy soxla wa nga xam ne œuvre la isdaaraat mu xaddamatul xidma moo ko isdaar ñu tegoon ko ci loxob Cheikh Mahamadul Muntaxa teg ko itam ci loxob kuréel gi yor xam-xam waaye gannaaw fii nag barabu xam-xam la ñu ne nañ ci indi exemple yoo xam ne mun na dem ci bibliothèque bi bu ëllëgee gone yi bàyyi ko xel ñu xam ne itam mu xaddamatul xidma maanaam ay tâcham mi ngi ci daara bi la visite ñu daal di koy amal ci jamono ji nga xam ne ñu ngi ci wàccaayu ubbiteel école ba tax na complexe kër maam Awa lépp lu mu diggante woon ak askan wi safoo bërëb bi ngir andi fi seeni doom jamono ji lépp dal dina yemb ginnaaw bi nga xam ne parents yi ñi ngi doon ñëw ànd ak élèves yi ngir instruire seeni doom fii ak ay fan yu néew njàng mi dina tàmbali ci bërëb bi